waa mais pexe amul pexe amul restez chez vous kay vous rek waaw waaye nag day sama xel mi dey fu ma nii ndeysaan mi ngi ci programme yi na gaaw ubbeeg jàmm yàlla na gaaw ubbeeg jàmm sama bàkk ba rek man looloo may daaneel radab radabra càkkin kii sa ba gin ngan ni radab radabra càkkin kii sa ba gin naan wrakkit wrakkit pacce pacce kii jëriñ pacce naan pax kii gi na pax eh kii gi na pax gi na naan jër jër jër jër jër lu may daaneel wuran pax ce gisa ba gin wurat sa xisa ba tëj sa mbax ki dërëj wure wure kin gin pax pax pax pax bi bin pax cëgëjë oh, loolu amul yàq cum waaye looloo neex waaye dama namu loolu loolu dama ko Assalamu alaikum. É, alaikum né? <laughs> assalam. Ah, bom. Bom. bo yow bu baax la yow kër gi yow New York yow rek di juma jege ah ñeneen ni mana muna mun na ñëw jaga la jege dengan waaye yow da nga ñëw rek jege ma <laughs> te nag li nga sol dafa rafet xam naa rafet na ah bi ku la ñaw wala bi bi de Modou Fall moo ko ñaw ndeysaan moom mun na ñaw Fall sama xarit bob. <laughs> Oh, na ñaw <laughs> dinaa ko wax mu ñëwal la grand boobu comme yii ngay sol ah dara ma ga dara moom saa ma rek sama mag bi li song ah li song doomu bëbb ak sama bajjana mina hmm. dañu ma may rek ah rafet na de dañu ma jox dina la ñawal de momit it ah. waaw waaw mais yow boy man duma sa boy mais yow nit nga est-ce que tu réfléchis yow di nga xaar yow ni nga bëgg dundé vie comme ça hein yow sa làmmiñ raw perroquet ba jaj jaj ah yow boo waxul sax yaa ngi ñammi mais ça c'est lan la c'est quoi ton problème ah lan mooy sa problème booy man bëgguma bruit tu ma wax bruit mais dimbali ya amuk dal mais yow di nga génn kër est-ce que xam nga tu vas sortir de la maison y a un rafet y a un rafet. <laughs> Hmm? mbaar eh, yow ndax yow am nga kii wala walax njaanu pooj wala walax njaanu pooj yooyu. walax njaan. waaw walax njaan bu sew bi nekk nii ci pooj wala fii ci digg yàlla walax njaan bi. ah réew. waaw réew boobu neex na boobu ak rafet <laughs> ah boobu rafet na ci maanaam da nga koo bëgg. yaxeera jigéenu jigéen bu ñuul bëggul boobu yéen yéen Sénégal bëggu leen boobu réew. Ah, man nag mun dama koy dama ci ñaanal mun naa la am naa garab bu ko maasale soo gisee ku ci bëgg ñaan mu maasaleel ko ko fii de buujoo <laughs> ah. fii de buujoo rew rek mm. faal xam nga faal waaw pussel bu baax ma dañuy waxtaan te yàlla rek tax ndax amuñu nëbboonte maag yow dëgg te timit xam nga boobu ba yaa ngi ci kër gi maa ngi lay bàyyi xel nag mhm. maa ngi lay bàyyi xel bu baax sëy kenn xam nga toogaay bi dafa yàgg faal te faal mag day am fu muy toll foo xam ne day soxla boppam dëgg de ma bëgg nga defal ma ñaan ñaan ma am borom kër allah la defal ñaan ñaanu xas ma am borom kër ma branché la dama ni soo bañee ku la déranger fa nga man lii may def man moo teral man aar laa am te teral et puis yow ku réew nga yow da ngaa man maa lay lijjanti eh, eh. je ne casse la gueule tout de suite eh, du ma morom du ma sa morom laa wax nijaay bàyyi ma laa je m'appelle tu t'appelles je m'appelle tu t'appelles je m'appelle je casse tu t'appelles yow j'ai oublié xanaa wóoroo ah xanaa wóoroo yow pourquoi les Sangaré ah. ah. ah. ma laa wax nijaay dugal dugal dugal yow tu t'appelles man sama xëdd bépp wàcc ngeen ko man mënu maa boole woor ak di wax oh. wàcc ngeen li ma li ma yoroon mënoon na ma yóbbu 18 heures mais fi mu ne wàcc ngeen ko Ousmane ma kii ma toog xaal ma kii daa ko gaañ la bëgg a xamoon daal lu bëri yóbbu gendarmerie bu ah, ah, Ousmane Ousmane xam nga dañoo nekk ci weeru koor koor gi tàng na te kenn ku ne fi na sa bopp nga tal kii xam nga ko moom xam na la ay mbokk ngeen même bu ngeen miinantewul

ba train ba nekk 3 mètres. comme ñoo ñu def robe de mariage. mu ngoog loolu laay wax di robe de mariage laay waaw ma gàddu fleur bi. ah. mu am garçon d'honneur. wallaay hôtesse yi taxaw. may dugg ci biir salle bi salle baa ngi fees dell. boobu dina nax. Hmm. way woowu ñuy teg. Hmm. te kii way ko Phil Collins. waaw Youssou Ndour way mbëggeel. waaw. gis nga bu may dox di dugg si ci biir saal bi ba ñuy teg wuy bi naan wuy mbëggeel mm-hmm. man ak mbëggeel may temp nànk di dugg xol nga waxee xol xol nga waxee dinaa la ñaanal son naa de dinaa la ñaanal nga xam jëkkër yow kon amuloo jëkkër nga xam kenn bëggu la ah, am na ñu la bëgg ahantey ah, am na ñu ma bëgg kay xanaa dañ la xanaa ñu la bëgg dañ lay tegal ay condition déedéet tegaluñ ah. ma condition sax waaye dañ dul toog ah. dañuy ñëw rek dem ñëw bu kii kii mujj nag moom xale góor dana saay saay de dafa <laughs> ah. ja wax nañu yëpp yëpp yëpp dara desul mu yónni mu daal toog te doo xam lu leen di téye dem na waaye mbaar yóbbaalewul ci yow dara ci lu mel ne mbaar deful dara rek deful dara ci yow def dara ci lan pottiwul dara yii ko mu dem kon perto Ousmane lolou di wax ji euh dama bëgg nga xamné amna leneen luñu mëna mën a wax te loolooy wax ji ñor nag te loolooy wax ji waxu ta lolou moy wax ji ñu war a wax. li ñu war a wax moy dugg be genn bi Ousmane ba nga ñëwé ba légui def 15 ans Europe ñëw yor awalis sama xol sama xel sama yaakar sama rêve yëpp mu def ko ci valise bi bo ba légui valise ba ngi ne ci rukba valise moom mi ngi fi en tant que valise ñoo xam ne valise ngi fi mais valise bi représenté gul dara ndax buy bala moo am njariñ toj te buy bee tojagul Ousmane gisagu ma la nga ne maa ngi dem port Ousmane dégg gu ma la nga yaa ngi génn ji ay conteneur Ousmane gisagu ma la nga dawal oto ah sam xel teey na sam xel teey na nit nag boo nekkee sa nijaay mu wóor la wérul man ko sama xol seddee gis nga ma ni may def bu tàngee gis nga ni may def nga xam ne yaa may libéré de yaa may teg ci axe de tegoo ma nag ci axe wax ma lu leer ndax dem naa ba mëntumaa dem Ousmane li gën a baax ci kër gi yow laa ko jox nga dogoo ko solution yaay lekk fromage grillé yaay lekk li gën a yaay lekk tàndarma yi neex yaay lekk ñun lekkatul dara lépp loolu ko jox man nag dem naa ba mënutumaa dem Ousmane mënutumaa dem de léegi yow mi puus ma dem soo ma puusul damay taxaw te kër gi kenn dootul lekk walis bi nañ ko daaj mu am njëriñ dinaa la ñaanal incha allah nga am kii nga. waaw dinaa la ñaanal. loolu baax na dinaa la ñaanal di nga am jëkkër bu dul ren. Hmm. di déwén bu dul di euh, beneen déwén am jëkkër. dee nga maa may sa bopp. kan man. man yow ma taq la yow ki ngay wax ki ngay waxal laa la bëgg a orienté tuuti. Hmm, waaw pour dimbali la ci kii. Ah. xam nga yow yàlla dimbali ne sa ñaan ñëpp reconnaître nañ soo ñaanee mu dem yàlla nangu ko. Ah, loolu ñëpp loolu ñaan moo gaaw. loolu la àdduna toppee. xam nga yow loolu boo ko ñàkkee ah, am na ñoo am boo duggee ci ñoom loo dafa hmm. ñaaw fi benn nit. am na benn sëriñ bu nekkoon fee terrain carré da jam maire bañu ko sax gaa waaye man dafa fees fu mu nekk man dafa fees. fees ah, dama fees rang mais tonse bu ma pression yow tam bu bu man bugguma bugguma ku may bousculer di ma di quoi nit kenn koo pousse je te dis je suis responsable comme toi ba ma ba léegi wax naa la mais ñaata at laa def en Europe. Ousmane dafa am lu gëm. valise bu bu valise code lu mën a dindi ko tamit su fekkee dépasse nañ du ñu ut jaas wala paaka bu ñaw xotti valise bi génne ko ndax jaas valise yi du dara tissu la rek dañ koy xotti ñun soxla wu valise bi li ci biir valise bi lañ soxla. ah dinaa la may suma benn xarit xaadim ñang tuuba waaye walla ma ñaanal la ah, ma may la xaadim ñang Touba nga nekk wujju Seynabou Samb waaye nag man moom duma fres waaye moom mënul takk yow nag wax dëgg yàlla. ndax man wax dëgg yàlla incha allah dinaa la ñaanal. yow jàppal ni valise bu ubbeekoo mooy sa sa sa ngay dund àjjana ngay dundu waaw dama dugg àjjana léegi fa bëgg a def ndànk. Ah, yow mi am man mi am yéene dugal la àjjana man maa ñëw ak sama valise valise bi non seulement waxuma la code mais dafa am caabi. nañ ko